bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum sëriñ bi sëriñ Mouhamadul Mountakha Bachir Mbacké xalifatu kullu murid maa ngi yëkkati ay kàddu nuyoo yoo xam ne sama xol laa ko tibbee ak i kàddu ziyaara ak i kàddu di la ndokkeel ci bés bu màgg bii ñu dëgmal di bésu ngëneel ci dina lislaam di bésu yaakaar itam ci jullit yépp muy màggalu Tuuba ginnaaw bu ma la nuyoo ak délégation bi ànd ak man ma wëlbatiku joxaat la suñuy nuyoo ak suñuy ziara jëm si njabootu xadimu rasul gépp gi toog ci sa ginnaaw nga jottalil ñu nuyoo boobu ak ziara boobu ma ñëwaat sëriñ bi ci di la sargalaat si ajjuma bële ñu génn mu doon ubbiteeg juma masalikul jinaan ubbite goo xam ni jàngat nañ ci yaatali xéewal ak jàmm ak akub déggoo jëm ci diine lislaam bi yépp rawatina ci këru diine lislaam yépp yi nga dajale keroog ci masalikul jinaan waaye nekk na it yaatal xéewal ak yaatal jàmm ak déggoo ci mbooleem diggante ñi nga xam ne it ñoo seq wàllu àdduna kon sëriñ bi maa ngi la ci gërëmaat du la santaat bu baaxa baax ci sa taxawaay ba lépp sotti ak jàmm jëf ba ma dellu si waatee ci li jëm ci màggal gi maa ngi lay féddali sama pas-pas si gouvernement bi taxawaay bi nga xam ne war na ko taxaw ci sa wet ba lépp lu yitteel dëkk bi rawatina li jëm ci wàllu màggal gi ñu mën ci taxaw niñ ci war a taxawee la cay jiitu nag mooy wàllu ndox ak assenisement ndax bu ñu amee seetlu waxtu wi déwén bu ñu fi yàlla bàyyee màggal gi ak déwén jéeg ci biir nawet lay tombe loolu nag dafa waaj dafa dafa laaj ñu am waajal ba bëgg naa bu ñu génnee ci màggal gi ñu saytuwaat mbiru ndoxu Touba ak réseau yi fi nekk ba xool dëgg-dëgg ak tolluwaayu dëkk bi lan mooy solution yu gën a yaatu te nekk luy gën a méngoo ak bëgg-bëggu dëkk bi waaye ak yitte askan wi nekk fii ci Touba ginnaaw loolu it mbirum courant dafay nekk lu soxal dëkk bi ndax yaatuwaay bi ak tolluwaay bi loolu it gouvernement bi ak Senelec ak ñépp ñi nga xam ni ñu ngi liggéey ci wàllu woowu daañ ci taxaw taxawaay yu war ba lépp mën a yomb ah ginnaaw loolu sëriñ bi maa ngi ñëwaat bi ma ñëwee tey ci suba dem na visiter complexe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul complex bi nga tàmbali liggéey bi weer yi ñu génn du la wax ne de wax dëgg yàlla gis nañu fa liggéey bu rafet gis nañ fa it liggéey bu kéemaane liggéey bu ama am solo ci tolluwaayu bâtiment yi ak tolluwaayu daara gu mag googule waaye li ma ci gën a yéem mooy loo xam ne ay weer rekk ci ginnaaw nga ko tàmbali waaye tey ba ñu fa demee fekk nañ fa ay batiment yu bare bare yu R plus ñetti étage ñeenti étage yu taxaw ba pare muy wane pas-pas ñu nga dënk liggéey bi ak pas-pasu taalibe yi nga xam ne ñoomit it nañ la ci liggéey boobu ñu si si li nag bu baax a baax ndax daara jooju xam ne lu sëriñ bi bindoon la bàyyi fi kon nag su nga liggéey bu ama am solo boo xam ne ñëpp war nañ ci taxaw ñëpp war nañ ci jàpp ndax yow yaa ubbi liggéey bi yaa wane it jëfit li tax liggéey bi mel noonu ba tax na gis naa bi ñu ma présenté daara ji ne ginnaaw jàngale diine gi nga xam ne moo tax mu jóg boole nga ci ab métier yoo xam ne ay métier ñu fa mën a jàngal ñenn ci ndongo yi wàll woowee nag ñun mën nañ ci taxawit sunu wàll ndax dama am yéene ci ñeen fukki département ak juróom yi ci biir senegal benn bu ne ma taxawal fa daara métier boo xam ne dinañ tàggat xale yi jàngale ni métier ba nga xam ne bu ñu fa génnee wutub xëy dana leen yomb lool kon ci sa ndigal mën nañu ci wàllu dara liggéeyukaay yi ñu indi itam loolu mu nekk beneen euh, suñu taxawaay ndax moom lañu fas fas yéene def ngir yombal liggéeyu gone yi kon sëriñ bi ñëw bii tey dafay wareef si ñun ñu ñëw tam andil la ziyaara ak ndokkale senegal yëpp ndax màggal gi nekkatul rek mbiru yoon wi nekkatul rek mbiru lislaamu Sénégal waaye dafa nekk lu wër àdduna bi yëpp kon ñu ngi leen ndokkale ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool te ànd ak wër te lépp loo sumb suñu borom taxaw la ba nga mottali ko te am nañ ci yaakaar ñu ne lépp lu si suñu wareef incha allah daañ ci taxaw ci sa wet ngir indi itam naa li nga xam ne mooy suñu wàll ci liggéey bi nga sumb dinañ ko dinañ ci jàpp bu baax a baax maa ngi sant bu baax di la gërëm ndax xam sa yéene ci liggéey bi ma yàlla dënk xamit say ñaan ak sa jàppale kon yal na yàlla yàggal loolu yàlla sàmm senegal suturaal senegal ba ñu yàgg tam di ñëw di leen fi fekk allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim mi ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm ci bis bii nga xam ne ñëw nga fi mboolem ñi nga àndal ñëpp nag te buñ ci tuddee euh, lim sax boo ca xesee dugg da ngay fàtte te tuddoon nañ ko waaye ñu ngi nuyu ñëpp daal di leen sant ci ndax buñ la xasee tudd rek tàbbi nga ci biir sëriñ bi nag bis bii nga xam ne dangaa ñëw ngir siyaare si ko day bis bu màgg ci moom ndax màggalu Tuba mooy bis bi fi sëriñ Tuba bàyyi ko woon ngir liggéeyale rasulullahi sallallahu alayhi wa liggéey bi nga xam ne lépp lu mu am rek ci bis bi la ko amee muy bis boo xam ne sëriñ bi dafa génnoon gàddaay dëddu lépp ñu génn ko ci biiri këram génn ko ci biiri bokkam benn génne ko ci biir ay taalibeem jàppoon na dañ koy sànki waaye fekk dafa dem ngir liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa am fa juróom-ñaari at yu tegal ba yàlla dogal ab liggéey mat foofu lépp luy ab nattu nag luñ jàpp ne dana mettitil doomu aadama walla dana faat bakkan teg nañ ko ko lépp suñ borom musal ko ci ñu war ca jàngate lu bari ndax ba mu dellusee li mu njëkk wax mooy afawtu anil aadaai turan li wacci man nafaahum li xayri sarmadan lastu atbahu li mu njëkk a wax rek mooy jéggal naa samay noonu moo tax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké danaa wax ne sëriñ Touba du ku ñuy ñuy xeexal ndax jéggal na ay noonu ku jéggal say noonu nag kenn du la xeexal ak say noonu kon ci loolu sëriñ bi nee ne mu ngi fàttali ñëpp li nga xam ne suñ borom santaane na ko ci alxuraan ci diggante nit ak noonam ndax xam ngeen ne liy jukk di wax ci kilifa diine yi ak di wax ci mbirum sëriñ Touba bari na lool waaye lim leen ci digal mooy idfa billati hiya ahsan fa iza llasi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu wa maa yulaqaaha illa illa suu azin azim kon ñu xam ne sëriñ Tuubaa mbiram liggéey na ba sëriñ ba mu ko li mu ko faye kon nag li ko faye du ay wax moo koy far wala moo ko yàq wa shamsu radaduha fi l ufqi taaliatun an laa yara daw aha man laysa sa basari sëriñ bi nag noonu la liggéey la ba dellu siwaat ñu yóbbu ko Mauritanie moo am fa juróomi at ñu delloo si ko yóbbu ko ci Thiène Jolof mu am fa ñeenti at ñu delloo si ko indi ko Njaaréem mu nekk fa résidence surveillée ba ñibbisi si kon moom dundam gépp ci àdduna mës sa liibar mës sa noppalu mës sa nekk ci afiya waaye lépp nag dara warlu ko woon lu may xeetali jaam yàlla yi ak yërëm leen ak bëgg leen ram bu ëllëgee moo tax mu wax ne lawla alquran wa xidmatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa maslahatu alciyaali wal ibaadi ma bittu fi dunia laylatan waxida nee na bu toon ak ak liggéeyal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam du ma ci àdduna génn guddi kon moom àdduna musu koo jaral dara boo gisee nag suñ borom faye ko lii mu ko faye dafa jaayante ji bàyyi lépp te suñ borom gënal ko lépp mu jox léppam yàlla moo suñ borom fayee ko li mu ko fayee moo tax nag Serigne Touba dafa waxoon ne yàlla suñ borom de liggéeyal naa ko liggéey boo xam ne dama fayee àdduna ak àllaaxira nee na ma def ko ci sama bitu loxo képp ko ko fi sàkk su ku ne danga ko am daal di wax ne yaara fi ñëw ki nga xam ne àdduna rekk ko fi indi ak ki nga xam ne àllaaxira ko fi indi nee na ku ci ne nag la fa bëgg mënal naa la ko te dinaa la ko defal ki ma jaaxa daal mooy kii nga xam ne ni man yàlla def neexu ko kon loolu nañ xam ne Serigne Touba loolooy mbiram bindoon na it wax ne an na man waasala nii laa li xaradin dunyawi ni fa innahu yakunu min mu muqarrabin képp koo xam ne ñëw nga ci man te àllaaxir rek tax laa jug nga xam dara yi àdduna yëkkatiw la suñu borom daan la boole ci ñi ko gën a jege képp koo xam ne ñëw nga ci man nag te àdduna tax laa jóg fa inna allaha yukrimuhu maadaama xayyan kon nag Serigne mooy waxoon na ne amarani rabbi bi an usarriha bi anni malaasun wa mafsahun wa ximan fa man araada xayra fii kilta yi daarani fa yalus bi suñ borom moom digal xamal ma ne ma waxal mbindee fi ne leen ab wéeruwaay ab rookaay laa képp koo xam ne bëgg nga muccug àdduna ak alaaxira ñëwal wéeru ci man kon nag loolu mooy li fi indi ñëpp kon nag président sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu jiitelee kàddu yooyu yi mi ngi yeesalaat di la dalal jàmm ci dëkk bi di la eh, sant yàlla lam la waxoon ne la boo duggee ci dëkk bi nañ ci fas yéene ca sa yoon wu jëkkoo loolu rek lay fedlewaat sant la yàlla sa borom ak sant ko sëriñ Tuubaa ndax nee na sa digg moom day loo xam ne suñ borom moo ko dogal ndax yàlla lépp lu am rek moo ko bi moo ko dogal ci ësal yàlla ci kàttanam rek moo dogal dajale leen jamono ndax nee na bi leen yàlla boolee jiitu na muy tooge ci jataay bii yow itam booba ko njiitu réew mi waaye nee na bam la xamee ba tey mu xam la ci yar xam la ci teggin xam la ci ak baax xam la ci ci fonk ko it di ko teral ngi jëm Sëriñ Tuubaa nee na loolee nag yàlla da ko def sa digg moom do def ak cofeel ci sa digg moom cofeel goo xam ne xam na fu muy tàmbali waaye xamut fu muy yem ba yàlla def nag yaakaar jooju nga amoon ci moom bi mu demee ba tooge jotaayu Sëriñ Tuubaa bi yaakaar ji gën a dolli ko nee loolu nag moom bi fi ay kilifaam nekkee noonu la ko yàlla bi ne sëñu te def sëñu te bàyyi lépp dafa tënkoon ci seen kilifteef bi mu demee ba ne fi nag wóotu leen fi di fi jëmbi Sëriñ Tuubaa loolaa waral nag yaakaar jooju nga am ci moom moom léppam Sëriñ Tuubaa la moo taxoon nam la ko waxe woon mu jur sa mbir dénk ko Sëriñ Tuubaa ñee na nag fi mu nii la ko jëkk dafa teewlu woon sëriñ bi waaye léegi nag tàmbali na di la ñaanal ñaan gi it mooy nga am ndam ci liggéey bi ba mboolem li nga xam ne yéene nga ko ci Sénégal nee na nga am ko ni nga ko bëgg ni ko sa njort ci biir loolu itam nee na yéene jëm la yéene lépp loo xam ne gis nga mu digal la ko rek lam ci jublu mooy nga am muccuk àdduna ak muccu àllaaxira ndax moom kat yàlla def na amul benn bëgg-bëgg ci àdduna lu mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa kon yow nag ndegam yàlla dalaa booleek moom nga am tawféex jooju ci moom nee lu mu la digal rek loolu la ci jublu kon nag nee na mi ngi yee salaat ak cant ak ngërëm sa digg ak moom ndax xam na ni li la war ci dëkk bi yaa ngi ci def ba def ci loo mënut firnde yi bari na am nga yow ci junj waaye liñ ci tudd moo ëpp ndax ci wàllu wér-gi-yaram rek boo ci ñëwee euh, hôpital Modou Lo Fawzeyni bi ñaa ngi cee def batiment bu mag boo xam ne mën na set milliards te ñi ko yor wax nañ ne mën naa am màggalu déwén mu àgg te boo ko teg hôpital bi mu fi sumboon loolu nag fànn yu bari def nga ko ci loolu lépp nag nee na boo koy def ci dëkk bi dàkk ak bëggam ak dàkk bëggu Serigne Touba moo tax nga di ko def kon nag nee na moom mi fi nekkee Serigne Touba nag te lépp loo defee njabootu Serigne Touba gi cant gi ak ngërëm la nee na moom la war kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul kon nag da ñaanal ci yàlla ci barke suñu Tuubaa mboolem somb woo xam ne am nga ko ci réew mi rek yàlla suñu borom kàttanal la defal la ndimbal defal la tawféex ba nga bañ ci am benn gàllankoor wax na la ko léegi neen la saa soo xëyee ndam yi du yokk kon nag nee na loolu rek moo doon kàddu yi di la sant di la gërëm bu baax di it ci wàllu màggal gi itam dangaa joxoon ndigal ministre de l'intérieur mu di ko taxawu moom itam ci sa ndigal def na ci lim man ak dim def na def na ci lim man ak limarut loolu lépp itam lu ci ne leeral naa ko sëriñ bi ba lépp xam na ko nee na taxawaay yi ci def yëpp itam ñu ne ci sant bu baax di la ci gërëm di na ñaan li sëriñ Tuubaa daali woon ci liggéeyal ko daal yàlla nga tàbbi ci biir te mooy waq di xawaïjal lasina daamoo fii xidmati wa hablahum maaraamu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu